mën a def mooy que am na lu bari lu tey ji Sénégal yi soxla woon nañu xam situation sociale bi dis na situation économique diis na xale yi seen situation dis na Afrique Sénégal kenn xamatul ban tànk la ñuy euh, dox bon loolu yëpp président waxu ci dara suñu démocratie aussi waxu ci xalal Sénégal mu wane lan lan la ñu war a def fii ak ñaari at fii ak deux mille vingt-quatre mu ngoog euh, euh, Mansour euh, démb dégg nañu kon kàddu yi tukkee ci njitu rew bi ñu bari japp ni xeyna bilan la gëna def démb. waaw xamna naa discours démb bi moom du ko commenter à cent <laughs> parce que dama am habitude donc traduire démb. c'est malheureusement <laughs> na gën seen démb moom <laughs> maa ngi xont ay xar wax yalla je l'ai pas suivi hein sérieusement pour baña pour baña commenter lo xam maîtriser wo ko quoi. Fatou mom démb xontul woon xar mu ngi won ci ci plateau bi waaw discours bi dégg ko d'habitude comme ni ñu ko analyser monsieur Albert quand même euh, dañu seetlu 2017 ak léegi discours yi doon weesu peut-être 20 minutes dem bàyyi 22 minutes moom doon def loolu le président de la République mm. ni ko monsieur Albert waxee euh, jàpp na ne peut-être cette fois-ci répétition lay doon mais leneen dañu jógee ci discours du 31 décembre qui mm. n'est pas peut-être soriwul mm-hmm. ak discours 3 avril ndax durée bi ñetti weer kese la amaana loolu moom moo tax euh, diir bi gàtt mm-hmm. mais dafa am ay dogal wala ay décision yoo xam président de la République ñëwaat na fi mais surtout mm-hmm. nañu taxaw xat ci les 450 milliards de francs CFA

L'amour, waxone ci 450 milliards il dafa wouté ak li nga xamné ne mo am comme réalité sur le terrain parce que bu ANSD génnee un rapport même si le rapport ANSD ni ko waxé rapport la bo xamanté ne mi ngi ci quatrième trimestre 2021 fekk gul xeyna bobu ñu nous gis effectivité euh, li nga xamné ne moy euh, xeyu ndaw yi mais au moins waron na li ñu ci bu na lay neex bu baxé feñ waron na au moins tàmbali di xeeñ ci askan wi di ndaw yi mais li ñu gis mom moy euh, tay les 450 milliards 150 milliards chaque année sur l'emploi des jeunes bi nga xamné mo moom la dégagé wul feñul ci li nga xamante ne tay moy sur le terrain mhm. ñi nga xamante ne ñooy ay ndaw lu jëm ci seen liggéey lu jëm ci pôle emploi yoy ni mu ko waxé won également mëno ko sentir ci gox yi nga xamante ne mom la ko waxoon fofu également jafé jafé la et que mëna nek ni ñu koy waxé sa su ne mu melni da fay réchauffer indi wat la mu waxoon mu tegaat ko ci li nga xam ne leneen li nak lu am solo moy lu jëm ci walu ko mbay parce que il faut que Sénégal également mhm. am li nga xam ne moom mooy autosuffisance manam di produire diko dundé mais également li nga xamné mom lañuy dundé mu nek lo xamné ne ñoo koy produire te lolu mbass mi daf ñu wan suñu ay carence ci li nga xam te ne moom am jafé jafé ko wuti biti rew mu indi yokkute lolu également muy mbay mi muy cham gi c'est tout à fait normal que ñu def ci ay effort et que mu am également jàppale état Fatou ñu wax ci ñaar ñi nga xamante ne dañu fatone sen bakkan fële ci Madinatul salam euh, fukki cantaakun ñu joxo leen leen ci baramu touma atté won leen euh, tëj leen lu tolloko fukki at ak yo euh, yoo xamante dañuy def travaux forcés ñoom ñu ne nag njiitu réew bi gracié na len lolé euh, ñuy fatali que euh, ñom ñu ngi len condamné won ci mai bu atum 2019 euh, tout tuuma ñu tegoon ci sonu ndodd bokku na ci meurtre avec torture ak association de malfaiteurs ak itam yeneen sax ñu ond ci ak Badara Sonko bokku na ci Mamadou Gueye Alioune Diallo mohamed sen Moussa Dieye Adama Sow Ali Diouf Mortale Diop Serigne Khadim Sek, Abdoulaye Diouf ak Cheikh Faye di fukki cantakun yi nga xamantene ñom daal nañ bénéficié ci grâce présidentielle bu 3 avril bu président de la République Macky Sall Ñom nak ci atum 2019 ba mai jotee ci lañ leen condamné ci 15 ans de travaux forcés liñ de leen di topé moy fat nit ci anam yi jégg dayo waaye tamit boolek ak bu doy na ci association de malfaiteurs ak suul nit ci amo ci digelu bour ñom ñi tollon ci accusé naka nonu ci lañ daal di libéré juróom ñetti ci ñoom ci fàttali mbir yaa ngi amee le 22 avril 2012 ca kër Cheikh Béthio Thioune ca Médinatul Salaam ci la jàppante bu méttee métti daal di amoon ci diggante ki nga xamante ne mooy Bara Sow Ababacar Diagne ak ay cantakun ba naka noonu ñoom ñaar ñi sax ci lañ daal di ñàkk seen bakkan ci anam bu jéggi dayoo gannaaw ba jéey bi amee Bara Sow ak Ababacar Diagne ñoom cantakun yi nga xamante ne ñoo def jëf ji li dañ leen daal di suul lu soriwul dara kër Cheikh bi d'ailleurs sax ñoom gannaaw bañ leen condamné ñii ñoo ngi woon ca prison bu Koutal ca diwaanu Kaolack ñi andi len fi nga xamantene moy ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour ñoo des ci boobule grâce présidentielle bi ñu accordel fukki cantaakun njabootu euh, kenn ci ñom di ababakar Diagne rawati na waajuram bu jigen mom mu ngi koy ñaawlu bu baax baax di xam ne ni mbetteel la ci am mu ci rax doli itam ni ndàmpaay bi nga xamante mom lañu la ñu leen waroon jox egg ci téeméeri million ba légui amul ben fistine bo xamante ne jot nañu ko ci ñoo du ceeg mom mu di ndey hadifal Fall. dama won lu bon lolu ñu defoon.

ndax ñi nga xamante ne acte barbarie rey ba pare ñu wëlbatiku gracier leen ba pare wëlbatiku seen peine jeexagul ñu gracier leen wëlbatiku tamit ñu ñu ñu war a fay famille bi cent million joxuñu leen dara ñu xëy gracier leen mais ci ban réew lañ nekk ban justice lañ yor mu ngoog Monso ban ban gis-gis nga nga ci am biñu len leen bi sentence bi waddee ak légui 2019 la won yagul tay ñu ne gracier nañu len bo faté li nekkoon na nekkoon na benn sujet bu am solo bo xamni daw xuma daw ji traité won nañu ko fi ñoo xamni ni seen i tur dafay dugg ci liste yi nga xamni dañ leen di gracier. Mhm. ak kan mo am sañ-sañu bénéficier wu ci. ay question la yo xam traité won nañu ko fi jël fi ay spécialistes ñu wax ci est-ce que crime ku def dañ la war a gracier wala da nga war a génn ci liberté conditionnelle borom xam-xam yi wax nañ ci ba tàyyi mhm. mais vraiment lii faaw mu ubbi débat bëgg ak bañ dina ubbi débat mhm. parce que yaayu Pape Diagne déjà man bi ma ko yëgee ci suba man maa jëkk jël sama téléphone Alioune Badara Sonko mhm. ni ko fii tout ba gis kenn ci famille ñi nekk foofu parce que man musuma dégg lii ku ñu daan 15 ans travaux forcés parce que bakke na nit la ak euh, sul nit te amoo ci ndigal ak euh, association malfaiteur euh, bu ñu la bàyyee ñaari at après Euh, qu'est-ce se passe. Mhm. Euh, liste yi nan lañ koy dugale ci ñi ñuy gracier ba mu egg ci njiitu yi mu jël décret saxal ko yooyu yëpp lu ñu mat a càmbaar la xoolaat ko ba xam yoon nag boo defee ak président bu defee ba noppi <laughs> dañ naan kenn du ko commenter. Mhm. mais commenter yi mooy.

parce que Pape Diagne dafa bari ay frères. Mhm. car macha allah. Mhm. Euh, yoo xam ni kenn ci ñu ni ci loxo Pape ba kenn Pape Diagne ci loxoom la des daanaka ñoo xaw a jàkkaarloo ay kër. Mhm. Euh, bu fekkee peine bi motul amende bi motul amuñu satisfaction ci ni ñu. ni yoon liggéey ci wàll boobu. est-ce que mënut indi leneen mënut indi beneen en boo xamante ne bii mu ngi des ci xolu ñi ñàkk seen ay doom. parce que yaay ji li mu njëkk a ci suñu waxtaan mooy avant ñu leen di rey ñoom. Pape am na doom jëkkoon a faatu ñu dem di ko suuli Madinatu Salaam après xeexoo yu ndaw yooyu tax ñu dàq leen ak ay jaasi ay nangam ba moom mu fanaan brigade yooyu yëpp da nga gis ni xolu yaay ji mu ngi feeñ mu ngi koy indiwaat di indiwaat moo tax nag faaw ñu posé ci ay question euh, dég dégluwaat ci spécialistes yi ak itam jéem a laaj ci gan anam la ñuy dugale listu gracier yi ba muy egg ba njiit réew mi di ko signé ñu leen di bàyyi mais en tout cas lu doy waar la quoi wax dëgg yàlla. Eh, te te gracier yi Fatou Abdou heure bu à chaque fois bu amee dina ci am benn wala ñaar bu jur ay coow mais bii xëy na jaaxal na nit ci bu baax a baax. Euh, loolu laa wax sax que ne souvent euh, dafay ñëwaat cette question bi nga jëm processus souvent parce que gis fi le cas Amadou Diallo nga dañu ko gracier ba pourtant le président de la République Macky n'avait pas toutes les informations concernant peut-être son dossier li nga xamante ne nag moom mooy grâce ñu ko table bi mu nga gracier mais c'est-à-dire que ay présumé dañu wax dañu ay at yoo xamante ne moom la ñu leen tëj li ma gis moom mooy 15 années de travaux forcés mm-hmm. bu fekkee dañ tëj nit 15 années de travaux forcés mm-hmm. nit kooku def daanaka ñetti at képp ñu daal di koy dindi bàyyi ko delloo ko ci ay mbokam loolu également njaboot yi c'est tout à fait normal que ñu poser wu ay question laaj ba xam lan moo euh, peut-être ñi nga xam ne ñu sax la moitié de leur peine ñu daat leen di bàyyi mm-hmm. même si grâce moom kenn kese moom moo am sañ-sañ bi muy le président de la république mooy seet ku ko neex mhm. ak nu mu ko neexee at ya lu mu mënti bëri bëri moo koy seet mais famille bi li nga xam ne moom la ñuy laajte c'est légitime mhm. c'est-à-dire légitime li ñuy laajte moom mooy quinze années de travaux forcés nga def 3 ans ñu bàyyi la nga ñibbi ci sa kër mhm. ñu wax la ne da ngay fay ndàmpaay jëm ci li nga xam ne moom mooy cent millions de francs CFA nee nañu dara dugagul ci seen ay poches ñu yeewu subatel comme ça dégg ko phénomène fait se pose des questions naka la demee pourquoi mbir yi mel noonu alors qu'on parle peut-être de mort d'homme ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen ay bakkan seen njaboot boobu léegi ñuy xaar li nga xamante ne moom mooy mbir yi leer ñu ne mbir yi leer na àtte nañu ba pare ñu xëy gis leen comme ça question boobu la également na ci ñëpp di posé qu'est-ce qui s'est passé ba tax peut-être ñu yegg si fii peut ni ko Mansour waxee mën nañ ci am xëy na ay tontu fii ay jamono bu ñu defee ay gëstu ndax ni ñu ko waxee démb

yombal yëf yi bu ko defee du ñu gaañ ñi nga xamante ni dañu amay ay jàngoro bëgg faju ay morso yu xonk la ñu nar a takk dalee ko euh, mardi loolee ci ayu bës bi yëpp bu ñu ci noppee euh, mardi balee di ñëw ayu bés balee di ñëw kon ñu daal di amal ab assemblée générale waaye beneen ayu bés ba dinañu amal grève totale bu fekkee benn coppite amul